fu nawwir fuaadiya wa lisrax sadri wajxal jihaadiya ka yawmi badri bokki jullit yi fi teew ñi ngi leen di nuyu di jiital ci nuyo bi sëriñ Isxaq Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadul Basir moom mi fi teewee jataayu Cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu seex Mouhamadul Basir xalif général des Mourides di ko nuyu di ko siyaara ci jataay bii di nuyu sëriñ Seex Mbàkke Abdou Latif mi ànd ak moom di nuyu mboolem mbokki taalibe yi mu àndal jóge ci sëriñ bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di siyaara sëriñ Mouhamadul Muntaxa ci taxawaayam ci diine ji ak yoon wi di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te may ko wér di nuyu sëriñ Mbàkke Abdourahman mi nga xam ne barab bii mooy kilifa gi ko jiite ak rakkam ji fi yëkkati kàddu léegi di sëriñ ko sa Mbàkke di kàddu yoo xam ne yëkkati na ko fi muy kàddu yu am solo delloo lépp ci wàllu taarix ci diggante sëriñ Touba ak maam Thierno Ibra Fati ak sëriñ Abdourahman mi nga xam ne moo féetewoo woon jataay bii ñi ngi nuyu bokki taalibe yi fi teew yépp di nuyu sëriñ Mouhamadul mustafa Mbacke Abdoul Akram moom mi wàcc léegi yëkkati fi kàddu yu am solo ñi ngi ci am mbégte mu rëy di nuyu sous-préfet ah, di ko dalal jàmm ci dëkk bi nga xam ne daf fiy door a egsi di ko ñaanal yàlla yombal fi liggéeyam di nuyu Serigne Cheikh Aliou Mbacke mi nga xam ne moo jiite Maa-ul te liggéey ci liggéey bu am solo tàmbale ko ci jëmmi sëriñ saaliwu ak ndigalam ak kilifa yi fi jot a jaar yépp ku ci ne nga soññ ko ci jox ko ci ndigal ba mu egsi fii tey loolu nag tax na liggéey bi feeñaat fii tey waaye ci tënk rek ak waxtu wi euh, mbir mi xew fii dafay wane ne yoonu murit mënal na lépp boppam ndax li tax mu yomb Sëriñ tubaa ci boppam moom moo fàkk dëkk bii te booba mu am nu mu ko bëggee bëgg képp koo xam ne ñëw nga fi mu man la fay yar ñu jàngal la sa diine teg la ci yoonu siraatal mustaqim loolu moo tax mu àndoon ko ak bokk yim ko àndal ñu samp dëkk bi taxawal ko lépp nag mu teg ko ci anam goo xam ne dafa jiitu jamono ji ba tax na liberte bi mu bëggoon ci dëkk bi yépp comme ni mu ko waxee ci la Matlabul ni loolu moo dox ba dëkk bi agsi fii tey bari na ñoo xam ne ñi ngi fii te juddoo wuñu fi dañoo toxoo ci seen dëkki maam ak seen dëkki bàyyi ñëw sañc si fi li ko waral mooy li sëriñ bi dige woon lépp la gis ci dëkk bi te kenn ku nekk lu la jàmmal ci àdduna may la ab noflaay moom ngay wër foo mën a nekk kon nag loolu nañu fexe ba ñi nga xam ne ñooy sàmmal sëriñ bi dëkk bi di ay ndonoom loolee tax nit ñi riir wàcc seen pénc maam ak seen suufus baay loole bu ca dara soppiku nay gën a yokk bu ci dara wàññiku moo tax nag sëriñ Muntaxa mii nga xam ne jullit yépp am nañ yaakaar ci moom rawatina képp ku bokk ci yoonu murit kon yàlla bu yaakaar jooju tas moo tax li ma koy ñaanal waxtu wu nekk di ko wax ne rek am na ay groupe yoo xam ne kenn mënu leen a génne ci yoon wi te duñu nelaw guddi dafa ñuy daje xam nañu ko ngir lal ay pexe te loola lépp gënul ci yoonu murit gënul ci diine ji gënul ci xalif général de murit loolu nag dafa mat di bàyyi xel ndax loo xam ne xeetu nit wu nekk nga ca te mëneesu leen a génne ci yoon wi te lañuy lal képp ku leen ca fekk résultat du bari kon ñooñu mat nañoo bàyyi xel bu baax ndax guddi duñu ko nelaw te loolu rek mooy seen liggéey loolu nag lu mat a bàyyi xel la ah lu mel nii nag tegtal la ne ne benn taalibe def lii joxe kër goo xam ne jar na ay millions wëlbatiku war fee financer forage mën na maa wax ne weer wu nekk buñ ko organiser taalibe mën naa def loolu te attan na ko kon yoon wi li ci des mooy nosu te teg ko ci yoon wu tegu ci wu leer ndax nit ñi damay wax ne la mag ñi ànde woon ak ñoom képp ku ko àndeek ñoom danga gis ne lu ñu song mu egg suuf te loolu mooy pas-pas lañ jiital te mi ñoom li ci des nag mooy looy jëf na ko nit ñi teg bët kon ñi ñuy jiital ci kanam nit ñi nañu leen xàmmee ndax nekkal fi sëriñ bi nekkal fi yoon wi ak nekkal fi sa bopp du benn kon loolu képp kuy jàppale sëriñ Mouhamadou Mountakha na nga ko jàppale ci mu xàmmee nit ñi ci loolu ndax nekkul ci bitti ci biir la nekk kon ñun ñi nekk ci biti nañu bàyyi xel loolu te war nañoo xàmmee lu bari sëriñ Mbàkke Abdourahmane nag dama ciy dellusi tuuti moo sëriñ Koso ku ne xam na ne quartier bii nii ñu ko yore dal am xel te nun ñi xam lu bari ci dëkk bi ndax liggéey bi ñu yore tax nañu xam ne dëkk bii muy Daarul naan ñoom ñiy kilifa yi bari na loo xam ne duñ ko fi dégg duñ ko fi gis te loola seen jikko ak seenu melo moo tax ñu yar ci njaboot gi te faruñu benn taalibe ci lu dul dëgg kon yàllante woon quartier bu nekk am kilifa yu mel noonu kon yàlla na leen fi yàlla yàggal te may leen wér léegi nag li ci li ma ciy dolli tuuti ndax waxtu wi te tëj mooy ndox mu neex mu sell mën naa am ci dëkk bi te taalibe yi Sëriñ Tuubaa ñoo ko fi indi am na lool kenn waru cee xaar état baaboog yoonu murit moom am na lu mënal boppam état war ko caa gunge état liñ ko war a soxlaa mooy wàllu technique ak wàllu xam-xam ca ña yor loola te buñ ko tànnee ci biir taalibe yi sëriñ Tuubaa yi danañ ko fi am kon am na lu état mën a saytu loola buñ ca àggee état mën leen cee jàppale waaye naka jekk li tabax jumaay Tuubaa ji ba mu egsi fii loola taalibe yi sëriñ Tuubaa yi ñoo daan yenu ji doje ca ndokk ñëw di ko toj di ko lay taalibe yi sëriñ Tuubaa yi ñoo daan futti ku nekk ay maneebar raay bii li ko jëlee njaareem fii tubaab yi dañoo njëkkoon wax ne colonialisme bi jumaa ji du mën a taxaw ndax du gaaw boog ndax li ko waral mooy main-d'œuvre bu indi matériel bi du yomb booba nag sëriñ Mouhamadou Moustapha li mu njëkk a def mooy yëgal ko seex yi seex bu ne fa sa capacité toll nga joxe taalibe yi nu toll ñi mën a joxe téeméeri taalibe joxe ko ñi mën a joxe vin joxe ko ñi mën a joxe fanweeri taalibe joxe ko ñu gas bi ba mu ñëw Touba te main boobu yépp kenn fayu ko murid yi ñoo ko def ànd koog yéene te loolu la tubaab bi defoon ne du yomb loolu nag jógu fi tëralin bi moo des ak ñi koy taxawee ndax li ñu waxoon fii ci kàdd balloo ñu ne ndox mu neex a nga fa sëriñ Seex àll yu def étude yëpp am taalibe yu fa tàmbalee dugal seen alal li tee yëf yee agsi te 2 milliards yu manqué tuuti lañ waxoon ne moo koy def loolu war naa mën a nekk ci lu gaaw li fi nekk ci ay seex ci yoonu murit yu am kattan ak yéene seex bu ci nekk buñ la ne woon gasal juróomi kilomètre wala ñeenti kilomètre tiwoo ya dañ lay wax diamètre yi nga ñëw indi ko ñu posé ko techniciens yi taxaw balaa mat 6 mois ndox mi dugg biir Touba kon loolu war nañ ko man am na taalibe yoo xam ne ni kii financé forage bi mën nañu weer wu nekk am taalibe bu financé forage waaye fi mu nekk nii sëriñ bu ko buñ ko tërul organiser ko taalibe yi yor alal yépp te yéene ko yoon wi kenn du ci weesu nuyu ab sëriñ jox ko sa addiyee ju yam tàllal mu ñaanal la waaye kenn ku ci nekk bu boobaa da nga xam ne li nga war a def ci yoon wi defagoo ko kon nañ taxawu mbir mi jàppale ci sëriñ bi te it nag ñu bañ a jébbule yoon wi bañ a jébbule Touba ndax kat sëriñ tubaa wutal nañu autonomie bu mat sëkk wutal ñu loo xam ne lii moo koy encadré mboolem support yi mu war a àndal yépp sëriñ Touba wutal nañu ko ba noppi ndax nee woon na wa maskanan li jal bi kulli xayri wa maskanan li daf hi kulli dayri kon nag yi dëkk la boo xam ne daf koy xëcc muy ñëw loolu moo fi indi ñiñ fi gis ñëpp kon yiwoo lañ fexe ba bu ko dara rax lu fi nar a indi lor nag buñ amul farlu défendaral ko sëñ Touba sëñ Touba dana ko défendaral boppam ba noppi nag jàppe ñu ay yaafus maa ngi leen di bal wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon nag booy boo nga ñemee bu baax a baax liggéey bu réy xam ne amul benn liggéey bu ko jiitu waaw amul benn liggéey bu ko bu ko jiitu ëpp ko tuyaaba amul kon kon kon kon kon noonu dañuy ñaan rek suñu boom tëbb la lépp tëbb la wér tëbb la kattan tëbb la xel te xol jikko bu ko gën a mën a dékku euh, yooyu lépp yàlla mooy def mooy lu lu lu ko soo mën def ko kon nag loolu loolu lépp noonu la koy euh, gën ko ànd ak mbokk yu baax yii nga xam ne ñoom ñëpp euh, am nañ ceet ci man xam ne ñoom laa ci xam ne nii ñoom doy nañ ma sëkk ay ni rahmati alhamdulillah jasi leen